alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di leen ñaan it ngeen koy sant fi ngeen mën a toll sunu boroom boobu nee na nañu nekk aji dëggu tey ànd ak ña nga xam ne dañoo dëggu sunu boroom sant ne nañ ko ragal nee na bépp jaam bu ma ragal def samay ndigal bàyyi samay tere xat-xat yu mu nekkee lu mu yàgg-yàgg dana ko ci génne te danaa ko wërsëgal fu mu ko foogewul mbokk ñu ngi nii dal at mu yees at moo xam ne la koy mandargaal mooy gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jege makka jëm madina loolee di fàttali julit ci ne dëkkam mooy dëkku lislaam waaye lu mën a am ci àdduna yi diinam da ko ko war a gënal comme naka yonent bi ak i sahabaam di fewoon mbokk loolee di mbir bu mag sunu borom yàlla ubbee ko benn weer woo xam ne da ko tudde boppam muy la nga xam mooy shahrul muharram loolu mbokk dañoo gis sunu borom bi mu ne at mi day fukki weer la ak am na ñeent yu ma ca araamal lam ca toftal mooy lii day mooy diiney dëgg bu jub ngàllawaay fexe leen ba bu leen ci tooñ seen bopp mbokk jullit sunu boroom bañ na tooñ lool looloo tax mu ne man day tooñ araamal naa ko sama bopp te def naa ko mu araam ci seen diggante ngàllawaay bu leen nekk di tooñante mbokk tooñante kër gu mu dugg yàq ko dëkk bu mu dugg yàq ko réew mu mu dugg yàq ko yonent bi alayhi salaam na moytu leen tooñ tooñ day day nekk ay lëndëm yowmal qiyaama doonte ne mbokk tooñ yooyu ba ca gën a màgg mooy ngay tooñ sa boroom naka ngay tooñe sa boroom mooy nga koy utal bokkaale bi yaakaar keneen ku dul moom di waat ci keneen ku dul moom di sukkandiku ci keneen ku dul moom wala di ñaan keneen ku dul moom loolu mooy tooñ bi gën a màgg ci tooñ yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne lu ne mën naa koo bale da doon njaaloo la ak sàcc la ak rey nit amma bokkaale du ko baale mukk te ko bokkaale réer nga réer goo xam ne gu metti la mooy gu sori la mbokk waaye gannaaw loolu nañu moytu tooñ suñuy moroom na doon ñañ ca jege di jabar yaag doom yaag way jur ya waaye na doon dëkkandoo yaa kum mën a doon moytul tooñ sa kemtalal kattan aji tooñ ji ee boo ko tooñee mu yaakaar yàlla yëkkati ay loxoom jëme ci moom sunu borom yàlla dana na ko day maa ngi waat sama teddaange ne ni danaa la mës a dimbali même bu dul tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne aji tooñ heure bu ñaanee yàlla amul dara luy dox digganteem ak boroomam lu dul ne yàlla dana ko nangul noonu nit lañu doon waxe ne mooy ci leen tooñ képp koo tooñ yowmal qiyaama sunu borom yàlla yoonam nekkul sa diggante ak moom imma ëllëg dina jël ay say tuyaaba fayee ko ko bu say tuyaaba jeexee ñu dem jël ay bakkaaram ñëw sëf la ko kon nañu moytu tooñ waaye rawatina ci weer wu màgg wi ñu nekk wala fi di ko tuddee tam xarit mbokk weer la bu màgg ñu ngi ci fàttaliku gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci fàttaliku lu sunu borom defoon ci benn bis ci bis yooyu te mooy bisu fukkeel ba ci tam xarit léeg-léeg gaa yoo xam ne ñàkk xam di topp sunuy aaday maam ya daan wax ne oh, at mu yees mi moom mooy bisu ashura waaye mbokk loolu ñàkk xam la ashura mooy fukkeelu fan ci at bi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax bis boobu la yàlla tànnoon daal di ciy ab jaamam jaamam boo xam ne màggaloon na ko lool defoon ko ab yonent daan wax ak moom muy muy Muusa salaam waaye ci la tànnoon toroxal ca noonam bu màgg boobu noon boobu di firawna nga xam ne kuy bew moo la gën a bew yonent bi sallallahu alayhi wa bi Madina fekk na fa yahud di woor te boobu bëggoon na di dëppoo ak ñoom ca njëlbeenu gàddaayam mu ne waaw li ngeen di war lu mu doon ñu ne ko bis bi day moo dëppoo bis bi sunu boroom labale mu euh, firawna dimbali ba Muusa Muusa jël ko di ko woor ñu nit ñu looloo tax ñu koy woor yeneen ki bi sallallahu alayhi wa daa dina sahaaba yi ñun day ñoo gën a yey ci Muusa ci yahud yi kon la Muusa doon def yéen bu Ashura ñëwetee day leen ko def di ko woor mbokk bu ñu xoolee xadis bi am na ci ay taxawaay yoo xam ne jullit ñi war nañu koy bàyyi xel fu ñu mën a toll taxawaay bu jëkk bi mooy gis nga neen lu mu bëri doole neen lu mu siiw siiw lu yàgg lu yàgg yàgg rek day mujj daanu te muy ak tooñ akuk bew bu ko nguur yore ak mbooloo mu ko mën a yor ci neen rek lay mujj looloo tax firawna ngi nii bewoon na yàlla may ko nguur goo xam ne néew na kum ko mayoon ba tey boo demoon euh, fee di Égypte taax ya fa firawna tabaxoon ñiy toppatoo wàllu aaday adduna bi ñu koy wax UNESCO ñu ngi ko boole ci les sept merveilles du monde mooy juróom-ñaari kawit yi fi adduna bi taax yaa nga fa ba tey ca mooy yooyu loolu moo taxoon na mu bew yoru nguur gu kenn yorul woon ca jamonoom mu wëlbati ko na man may yàlla bi ngeen war a jaamu bal dem na ba ne xamuluma beneen yàlla budul man amul yen waa bani Israil jàpp di leen rey nu ko neexe di leen jaamu nu ko neexe loolee gis nañu ne sunu borom yàlla ba na nammee daaneel nguur ga jëliwul beneen armée ca biti waaye benn doom ci doomu bani Israil la jël daa di koy yóbbu kër firawna firawna di ko dundal ci alalam jabaru firawna def ko doomam sunu borom yàlla bàyyi ko foofu maggal ko foofu bam tal ni ñépp di toll borom bi doo koo génnee am fu ko jaarale dellu si woon ko ci firawna kooku moo ci sababam la firawna labi mu lay jàngal ne mbokk kattan kattanug yàlla kese la waaye itamit yàlla rek war a jara ragal ndax firawna lam doon ragal ci bani israil daaneel ko gis nañ ne Muusa salaam ca paleem la yaroo ko ñëpp sa njaboot nga la waay dénk ko yàlla rek te xam ne yàlla dong moo leen mën a aar ki yàlla aar dara du ko lor ki yàlla aarul kenn mënu koo aar loolee gis nañu firawna ba mu beewee sunu borom yàlla subhanahu wa da koo labal lab googu day mu ne yéen ñii xel war ngeen bàyyi xel ci loolu di ci xalaat mais ko xalaat googu lañ ciy xalaat mooy dan mooy ndeketee la nga xam ne mooy mbewte ci kaw suuf ci kaw suuf toon ci kaw suuf ak lu mu yàgg-yàgg rek sunu borom yàlla dana ko mas a sunu borom yàlla dina mas a toroxal ñooñee borom bi subhanahu wa taala mu ne wala yurad basuna an il qawmi al mujrimin ñi nga xam ne ay tontat lañu amul kenn koo xam ne mën na la nga xam ne mooy ay wamay nar a wàcc ci ñoom lii ñu dégg ci ne Moussa ak bani Israil day nekkoon nañ ñu néew doole lool amuñu benn armée Firawna feesoon dell ak armement waaye teewul yàlla alak firawna musal leen loolu it muy wane ne tey mboolem armement bu mën a nekk ci kaw suuf na doon ca occidentaux yi la wala ñu nekk ca orion bu doon te ni jullit ñi dañoo dellu woon sax ci seen nañ ko war a saxe tey benn puissance wurul woon am ci kaw suuf benn kàttan wurul woon am ci kaw lu dul kàttanub lislaam waaye loolu mbokk la koy sabab mooy jullit ñi gënaat yàlla bañ koo bokkaale delluwaat wa seen diine moom la borom bi wa taala di wax ne ya ayuha alladina amanu in tansuru llaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum ay yéen jurit mi su ngeen ma dimbalee ma dimbali leen te danaa dëgëral seen i ndëggu mbokk taxawaayu ñaareel bi julit war a bàyyi xel ci diggante xista Muusa ak Firawna moo dina ana yan bis lay ana yan bis lay mooy bis boo xamee ni nii islam da ca am ndam looluy bégal julit waaye du ne football sangam wala làmb sangam wala bis sangam laa juddu wala bis sangam laa amoon ab indépendance mbokk yooyu da ngay gis ne ma nga jóge ca ceddo ga am na julit la nga xam ne moom moo koy bégal la xam ne moo koy màggal la muy màggal mooy heure bu yégee ne kat yàlla may na ndam l'islam comme na ko yàlla subhanahu wa taala di waxe ne غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم sunu boroom am na ay jamono ñi gënoon a jege lislaam mooy waa Ruum ñoo xam ne nekkoon nañ ay chrétien ñooñee daan xeexaat yéefiri majuusi iranien ya su sunu borom yàlla may chrétien ya ndam ci ñoom borom bi ne xoolal lii day jullit ña bokkoon ak ñoom gëm-gëm ca jamono jooje gis nañu ne loolee ña nga cay kontaan te loolu mooy war kontaan loo jullit am naa taxawaayu ñetteel bi mbokku ab jullit dafa war a sant waaye naka la ñuy sante ndax bu dee na yàlla dafa def kawtéef def xéewal nañu koy sante mooy nañ def ay bâche yu bari tegelay feesaam bana rey na yi tëgg fecc naan kafe yi jaxasoo góor ak jigéen ñi ñu na lii mooy ak cant abadan mbokk julit gis nañ ne sant yàlla ma ngay déparé ca xol ba nga xam ne xéewal gi ci yàlla rek la jege lii kàttanu yàlla rek la nga wax ko ci sa làmmiñ bàkk yàlla ci ne doo ko bokkaale ak kenn waaye it nga daal ko koy defee na ko yàlla bëggee mbokk yàlla lu mu bëggoon ay yonentam la ko wax looloo tax yonent yàlla Muusa baachul wootewul am ndaje waaye dafa xëy woor sant bani Israil ñu woor loolu di mbir moo xame ni tamit suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee di roy Muusa ca koor ga la yemoon loolu itamit ñu dégg ci na ñu nit ñi ngi nekk di woor lu tax ñuy woor Ashura mooy dañuy woor ngir roy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kat du war a nekk benn bunt ñu ne mboolem xéewal gu yàlla def rek war nañ koo jagleel la nga xamee ne mooy ak cant abadan ko julit cant googee nañu koy defee yonent yàlla rek ko mën a joxe looloo tax am na lu màgg lool ci lislaam muy xare badr moom wax keroog ba yàlla dimbalee julit ñi ca badr ndax yi yonent bi alayhi salaam def na ko bisu koor wala def na ko bisu noos déedéet keroog makka ndax def na ko déedéet bi nga xamee ni nii sunu borom yàlla subhanahu wa taala indi na ay xéewalam matal diine ji ndax def na ko déedéet loolee kon lañ ci mën a gis mooy mboolem jaamu yàlla yooyu def ci yàlla rek nga ko war a royee ñi ngi woor yow mu ashura bërki dem ñu ngi wooroon yow mu arafa am na loo tax ñu koy wóor ngir sunu yonente alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xamee ne nii moom moo woote koor googe waaye bu dul loolu na doon tey ne dañ ne tey jii day bis bii ca la yonente bi juddu bis bii ca la yonente bi gàddaay bis ca la yonente bi def isra wal mi'raj bis def nangam ak i nangam sahabatul kiram ak borom xam-xam yu jëkk yi day moog yeneen bis yépp lañ yemele woon ndax amuñu lenn lu wér lu jóge ci yeneen bi alayhi salatu wasalaam loo xam ne daana ko def ak cant ñeel bis boobee amma mbokk la nga xam ne mooy taxawaayu ñeenteel bi taxawaayu ñeenteel bi ñoo ngi koy gis ci li yonente bi alayhi salaam wax ne ñun kat ñoo gën a yey ci Muusa ci yahud yi loolu mu ñuy jàngal nekkate mbokk lay mbokkoo dëgg-dëgg mooy ki nga bokkal pas-pas la nga xam ne mooy jege dëgg-dëgg mooy ki nga bokkal pas-pas ba nga gëm am naa ki nga bokkal ndey ak baay te bokku leen li ngeen gëm ku sori woo ngeen am naa ki nga bokkal benn kër gi ngeen di yeewoo te bokku leen lu ngeen gëm ku sori woo ngeen looloo tax sunu borom ne inna hadihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum faabudun seen xet benn xeet la may seen borom jaamu leen ma looloo tax yonente bi alayhi salaam ne leen yéen a gën a yey ci Muusa ci yahud yi nga xam ne dañoo teggi aw yoonam daa di sëf ci seen diina la leen neex tey ñi gën a yey ci Muusa ñiy taalibe Muusa ci kaw suuf mooy jurit ñi naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah comme naka yàlla waxe woon démb ci ibrahim inna awla annaasi bi ibrahim lalladina tabauhu wa hadha annabiyu walladina amanu wallahu waliyu lmuminin bi yahud yi bàkku naan ñun ibrahima sunu bàyyi la nasaraan yi bàkku naan ibrahima sunu bàyyi la sunu borom dana leen déedéet ña gën a yey ci Ibrahim mooy ña fe ña woon jamonoom topp ko ak yeneen ci yàlla bi ak jullit yi nga xam ne ñoo gëm Ibrahim teg ko place ba nga xam ne moom lañ ko war a teg te mooy jaamu yàlla la woon yeneen ci yàlla la woon. loole kon mbokk di mbir boo xam ne noonu lañ ko war a bàyyee xel ngallaway jullit xamal ni jullit rek mooy ka nga xam ne moom mooy mbokkam kon bisu Ashura mi ngi ni doonte ci natt bi yàlla nattoo am nañu jàpp ne tey ji mooy ashura am nañu jàpp ne suba mooy ashura doonte ne la nga xam ne moom lañ ci gëm insha allah mooy ku nekk la ngay def bu dee ne dara amu ci ci parparloo ya da ngaa seet la nga jàpp def ko ci yàlla tax insha allah yàlla dana la dëppaleeg bisu ashura lan mooy njëriñu woor bisu ashura moo di ne ne sunu yonente alayhi na at bii nga génn mboolem bakkaar ya nga ca defoon soo waree bi ci ashura yàlla subhanahu wa taala ball lépp gis ngeen yàlla subhanahu wa taala ball lépp loolee kon ngalawaay ñi ngi ñaan bisub tey bi ku mu rëccoo nit suba bi bu la rëcc loolee ñu gis ci it ne yonent bi alayhi salaam ba mu demee nag ba diine lislaam nag yàlla tere ko mu nuru nuru lu yahudi ak nasaraan te la ko sant sahaaba waaye sahaaba yi na ko ah yu mu yàlla yónni ashura bii day yahud yi dañ koy màggal comme ñun niñ koy màggalee mu ne waaw comme ñun bu déwénee nañuy woor bisu juróom-ñeenteel ba boole ko bisu fukkeel ba su ko defee ñun ñu woor ñaari fan ngir juyoo ak ñoom looloo tax borom xam-xam yi sopp lool bisu ashura bi moom war nañoo góorgóorlu góor ak jigéen ñëpp woor ko waaye ngelawaay soo mënoon teg benn bis avant loolu wala benn bis gannaaw loolu loolee da ngay gis ne ngëneel bu rëy la ngëneel boobu lan la ñuy fàttali lim ñuy fàttali mooy ndekati julit daa am identité boppam julit di roy yahud julit di roy nasaraan nga war a teyte sa njaboot góor ñaak jigéen ña fexe leen ba mandarga yahud ak nasaraan occidentaux yi de manière générale nga fexe mu bañ a feeñ ci ñoom sa doom fu mu génne ci kër gi nañ xam ne kii doomu julit bu génn la ñu xammee ko ca muuraayam gu mag ga ak colom gu sell ga lii ku nekk ci ñun war na cee bàyyi taxawaay heure boo xam ne ñu ngi ko lii nga xamee ne nii moom mooy ashura donte ne mbokk ashura boobu am na ci ñaari erreur yoo xam ne dam na julit ñi erreur bu jëkk bi di erreur bu bona bona bon mooy li ngeen nar a seetaan seen télévision yi ngeen gis ko Iran gis ko Irak ñooñu ñuy tudde ay chiite ar rafida ñooñu nga xam ne dañoo jàpp ne bisu Ashura ci la ñu reyoon Xuseynu ñu ne kon ñoom dañ koy def bisu naqar dañu daje nekk ay junni junni yor seen i jaasi ak seen i paaka di caw seen bopp di caw seen doom yi ndaw deret di di walangaan ñuy yuuxoo ko jooy jàpp ne loolu lañ koy def dalal la ala dalal kenn xamul réer yu tegaloo seen kaw la la ñuy a wax mbokk yàlla seetaan nañu rey ay yonent bal Useynu boobu ñuy naqar baayam Ali yu dañ koo rey Omar ibn dañ koo rey dañ koo rey amul benn julit te ña jiitu woon ñuy mas a jël bis leen rey di ko def bisu naqar loolee kon ñu gis na mbokk ak réer la alhamdulilah bariwul ci sunu Sénégal doonte ne ne nañu fagaru suñ kentalal kattan amma ñaareelu erreur bi mooy ñi nga xam ne bu Ashura ñëwee ñu def ko bisu feet togg seeni togg yu neex bu doon sunu maam ca àll ba dañuy génn seen ko daal di koy sancaat tuwaaletu lalaat mbokk loolu nañu xam ne cedde gu dekki la waaye du diine lislaam cedde gu dekki mooy lan yeneen ci bi alayhi salaam ca jamonoom gis nañ ne yahuti xaybar yi bisu ashura bu mosaan ñëw da daan mel ci ñoom ne bisu tabaski dañ koy xeetu seen jigéen ñi génn seen i takkaay yonent bi alayhi salaam ne yéen day yem leen ci koor gi su ko defee yow mi borom xel su ma lay waxal lan la ñu war a def ci tamxarit dama naan la koor ga rek la ko yàlla gërëm léegi nag bu ma laajati ñaatu xuloo gu ma laajati la ñuy diwoo ñaan yi ñuy jàng ca jàkka yaag ak dañuy wan nag di boole cere loolu moom mën nañ ko lim fii ba fajar la ca saalum am kajoor amu ko la ca bawol am jolof amu ko ila axiri waaye li ma lay seedeel yow mi borom xel xamal ne lenn dong dong la yonent bi alayhi salaam sunnaal ci ashura mooy nga daal di koy woor loolu képp koo xam ne nii wooroon na tey fi lal hamd ko wóorul tey na wóor suba yal na yàlla nangul ñu nangul bépp julit yal na yàlla boole ñu ñuy farandoy lislaam yal na yàlla su suñuy xol fekk yàlla rek a tax yal na yàlla may ñu ñu féewal ak yahud yi ak nasaraan yi yal na yàlla wàcce jàmm ci réewi julit ñi at mu yées mi yal na nekk atum ndamum lislaam atum yëkkatikug lislaam atum torox tàngeeg ñépp ñu wuuteeg yàlla ak yonente yàlla yal na yàlla yeggale suñu nawet bi ci jàmm def ko nawetu jàmm ak nawetu naataange yal na yàlla teggil ñu tiis bu nekk ci réew mi teggil ñu ndóol gi nekk ci réew mi wërsëgal mboolem ndaw ñi li nga xam ne mooy liggéey ak sëy yu barkeel yal na yàlla sàmm mag ñi rafetal seenu mucc ca boole ñoo suñu njaboot ci àjjana yu kawe